بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi ñu ngi sant suñu borom aji màgg gi te kawe ñu ngi koy màgg di ko kañ ci sunam yu sell yi ak melokaanam yu kawe yi nga xam ni moom rek mooy ki ko jagoo noo ngi julli di sëlmal ci ab yonente Muhammad salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi di ñaan suñu borom mu dëkkee dot ci waamin xéwal ci kaw yonente booba ak asxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain dellu si waat nañ weneen yoon ci doon keppaaru xam-xam di waxtaanee saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa alihi comme ni ñu koy baamtoo ci bind bu mel nii mbokk yi xam ngeen ni borom bi subhanahu wa taala bi mu ñu tàggee ba noppi ngir ñu jaamu ko dafa yabal ay ndaw yoo xam ni ñoom ñoo ñëwoon ci kaw suuf di woote jëme ci bëgg-bëggam boobu moom suñu borom ndaw yooyee ci ci mujj mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo leen téere yi masoon a wàcc la ca nekk suñu borom dëxal dëxalal ko ko ci ab téere jox ko mu tudd alquranul karim mboolem kaawteef yi nga xam ne suñu borom doon na ko jox ay yeneen suñu borom dajale ko jox ko yeneen bi muy ay mucjisaatam mboolem mbooloo yu gëm dëggaloo yi doon topp ay yeneen suñu borom booleeg yeneen bi salaa sallam ay saxaaba yoo xam ni ñoom kat seen ngëm-ngëm ca dëgëraay ga amul benn xeet yu mas a mel noona te kenn dootu mel ni ñoom ñi gën a fës ci ni ñuy melal mooy alxawaariyoon mooy ñu topp Isa te ñooña laa sakka ni borom xam-xam yi dëppoo nañ ci ni saxaaba yi duñ seen morom. kon saxaaba yooyu kat comme ni ko Abdullah ibn Mas'ud doon waxee mu wax ci am solo suñu borom dafa tànn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li mu noppee mu tànnal ko ay nit yoo xam ni ñoo war a nekk ay saxaabaam loolu kon li muy wane mooy bëgg nekk saxaaba du ko tax a doon. ñooñee suñu borom def leen ñoo gën a baax ñu xeet yi ay xol ñoo gën a jub ñoo gën a jubbantiku ñoo gën a sell xam-xam moo tax mu teg ci ne faarifu lahum qadrahum kon jaadu na ñu xam ñooñu ban tudd lañ am léegi ñi nga xam ne bokk na ci technique yi ñuy teg pour di xeex diine mooy dañ ñuy sabooteel saxaaba ya moo tax al allaama abu bakr ibn al arabi bil alif wal laam al maliki téeréem bu am solo ba al awaasim min al xawaasim fi maarifati mawaaqifi saxaaba an baada rasulillah nee na bul nangu mukk kuy saboote ak kuy ŋàññi ab saxaaba ci sa kanam ndax nga bëgg a ŋàññi ab saxaaba ci sa kanam xamal ne yonent bi la bëgg a saaga dafa ñemewu la yegg mu di ko jaare fii ndax bu sabootee ka doon jottali rek xam ngeen ne nit bu yónnee ci yow nga daggal lu bon kañ yónni wala bi dañuy waxe dafa mel ni ko yónni nga saaga kon ñi bëgg a cokkaat léegi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñooña dañuy jaar ci saxaaba yi allahu akbar yàlla tànn na yonent bi ay saxaaba yoo xam ni afdalu hadihi l umma quluba seen yëpp mbokk yi ñooñu ñoo ci gën a sell ay xol te jub te baax la te sellal te ragal yàlla ga ci bëgg yiw ga ci fonk yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bal yonent bi gënal leen seen bopp seen bakkan ak seeni alal ak seeni doom yépp wallaahi ajmaïn bal amul kenn ci ñoom koo xam ni musiba daan na tàkk ci kawam mu rëy ci moom par rapport ak musiba bu tàkk woon ci kaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom la ndaw sa doon wax bi ñu ko waxee baayam faatu na ndijaayam faatu na magam bu góor faatu na ci xare bi daf ni musiba gi mën a tàkk sama kaw te yonent bi bokk ci musiba jooju lu ndaw lay doon mbokk yi xam ngeen ni ñooñu bëggoon nañu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu dëgg yegg na koo xam ne Urwat ibn Mas'ud newoon na gaa yi bu yeboon ngeen bàyyi yéen bi ngeen di xeexal ndax yàgg ngeen maa yebal ci ay buur waaye musumaa gis aw nit woo xam ni fonk nañ kañ topp ba mel ni ñi fonk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu xaata ndik lu dul dël nañ ko loolu nag ci ay xususiyaatam la bokk des ko dafa gën doomu aadama bu watee kawaram ngay séddoo buy jàpp mu xaw tuuti ko ndox mi du laal suuf dañ koy jël bu gàcc yoo jox kenn ni ko tuural ma deret ji sax mu ni ko fekk naan kon ñoom yeggoon nañ ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo xam ne جيت لا يلا لون يكون لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب رب وحداني سين جند أدوار أكفت لكو نكنا جسمي بك دفر سيني بك بآخ لكن فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه للكرام فلاح ابن القيم مش وبدي أقع ودي أقعي لن ملل لكي يجيب لورو لورو لورو نينا سفكي ملو نيوم جيب لورو لورو لورو لورو lu kat bu yàggee nga doon ko ah waaye li mag ko saxaaba ya de boo yëgee seen dund doo ci yëg lenn mooy la wax naan tarju tarju tarju najaata walam tasluk matalikaha inna safinata la tajri ala yabati ah yow nee nga da ngaa bëgg mucc ñu ne waaw te doo jaar te yoon wa ñuy jaar pour mucc ñu ne waaw mu ne bu yeboo nga xam ni gaal kenn mënta fexe ba mu daw ci suuf inna safinata gaal la tajri ala yabatin di jaar ci dul ndox kon dundu saxaaba yi di ko déglu bokk yi bokk na ci di gën a mën a dolli imaanu ci gëm yàlla ndax suñu borom nee na ko wa kullan naqussu alayka min anbaai rusul ma nusabbitu bihi fuaada ñi ma lay nekk ni yëpp xista ibrahima ak luut ak zulkifleeg huud ak saalix ak suayb ak yaqub ak yusuf ñoom loolu lépp ngir sa ngëm yàlla gën a dollee nga xam nit ki su fekkee dafa nekk ci ay situation ñu wax ko ñi nga xam ne ñoo ko ci jiitu woon ak jaloore yaag jàmbaar ya nga loolu daf koy dolli jom da koy dolli courage xam nga da ngay gis nit nekk ci ay caaxaan ñu koy sakkal juróom-ñaari maamam sama maam nana dañ doon jeqale fii sama maama defoon lii sama maama defoon la ngay dëba ka naan ne ci ay caaxaan rek nga nekk jàpp na ne si nit ci njub di seen ci gërëmal suñu borom kooku moo war a gën a doon lekk loolu kon tey dellu ci waat nañ ak kenn ci saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu waxtaanee saxaaba yi boo xam ni damay wax ni moom xariyun an taarix xaw tuuti kon nga wax ko li borom xam-xam yi naan manees na ko bañ a présenté ndax ku ko xamul dégg nga ko muy alsaxaabiyu aljalil alfaqihu alkabir العالم الرباني الورع السبت المخلص أبو هريرة رضي الله عنه لخمي أبو الغن جنبر في حد النبي lu dul dañ ko fay tudd di ko tuddal amul benn jullit bu koy dégg lu dul dañ ko xam bal sax nag daa bokk ci li wane ni gëm nga yàlla mooy nga bëgg Abu Hurayra kon saxaabi yu jalil العالم الفقيه الشخص الثقة الحافظ الورع أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وفي يقنعني وقتاني أبو هريرة dafay delloo ci waat xelu nit ñu ni lekkate mbir mi nekkul ci jiitu ci waaye mbir mi sax te sellal ci la ak mujj ja allahu akbar automatiquement li ngay jëkkee rek nekk mbir mi nekkul ci yàgg ci du yàgg ci kese mooy ay barab yi li ñuy considéré du mooy da nga cee yàgg wala boog def nga ci ay at wala mën nga ko war a déedéet al ibratu bil xawaatim mooy mujjal lu tax ma wax loolu naka la Abi Hurayra mën a amee dara jaar yii mën a la wax yëpp tey ci benn bi te moo ne ci saxaaba yi mujjee tuub lañ koy boole ndax alal aqal ñetti at la def ak yonente bi ak ëslëf moo tax ñenn ñi naan ñeent ndax ci atum xaybar te la suuf see ñu teg ci ñetti at yonente bi faatu sallallahu alayhi wa sallam ba pare mboolem saxaaba yi solo xadiis Abu Hurayra moo ci ëpp lu mu solo ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom la al imam suyuuxi di wax ca téere booba mu taalif ci xadis mu alfiyatu suyuuxi ah ci téere bu am solo boo xam ni kenn daanu suñu borom la nga xam ne ñuy jàng xam-xamu mustalaxul xadis daanaka boo ko jàngee rek téere boobu moom xaw nga doyloo ko te li téere bi téeméer di junni la it borom nee na maa ngi ko taalif ci juróomi at ma tax nee na borom xam da ko ci muye est-ce que ci juróomi weer la bëgg a wax mu juróomi juróomi fan yow mu nekk juróomi fan la am dama déggoon ay booyam di sotti rek bokk na ca lan doon wax والمكثرون في رواية الحديث والأثر أبي هريرة الذي topp lu mu solo ci ay xadis jëlee ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy Abu Hurayra te ka topp mooy Abdullah ibn Amr ibn Aas ibn al Aas te ñu ngi gis li tax ndax mu xaw koo jege kon mbokk yi nit ki lu mu yéex a yéex a tuub ak lu mu yéex a yéex a comprendre l'islam loolu yéeg mu siiw mu nekk gannaaw waaye bu gëmee seen yi muy daw te sellal ngir yàlla sàpp te sàpp kanam ba la jëm loolu ngay jëkk jàng ci bu Abu Hurayra mooy yéex a tuub géeg yéex a xam sunnaag àlluwa ji gàtt ak yooyu yëpp ngëm-ngëm bi bu amee nit ki day romb sàppe ginnaaw yëpp dana dem ba ca sàppe kanam ba comme ni ko Abu Hurayra doon defee radiyallahu anhu ñaar ci ay nit mbokk yi ñoo dund ci mbir yaa ngi lool ba mu jëndal ñëwee rek ngay sànni naa ngi baal sànq ñaar ci ay nit ñoo sànq da nga leen di muslu ba ñu leen musloo ci seytaane far bi ñu xëy xëy rek fasarax allahu sadrahu bil islam suñu dara ubbi seen dënd ngir lislaam ومن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. ليس لي ñu ngi aju ci sellal bi ak nangu suñu borom subhanahu wa taala léegi doomu aadama dana dund ay at ci njub te du ko mujjee mbokk yi loolu jiitu la yaakaar naa ne ñun amuñu dalum xel nga gaaral te ne mën ngaa dal xel ci def ko ci kaw ñu ngi yaakaar waaye kenn si ñun ñëmewu la gaaral kenn si ñun ñëmewu la gaaral maa ngi déglu fan yi benn borom xam-xam muy nekk ni ci seen jamono ci yàgg lii ñuy nekk li xam naa ci ay trente ans et quelque lay toll wala moom su ko soree bariwut lool xëy na mën naa bañ a gis at yu bari waa joo xam ni borom xam-xam yi jamononte woon ak moom dañ ko doon tuddee say xal islam yu ni tey ndax lu mu jot koo xam-xam buy wax da nga yàgg ibn tey moo wax bu ñu demee ba ci mujjum tëdd dundal rek day wàll day tarax ñaari tànk yëpp baax bu mujjee ci mujjantalu bu bon boo xam ni ëpp naa neex li kalafaam moo tax imam ahmad ibn hamda innama al a'mal bil khawatim laysa al ibratu bil baddi innama al baddu bil xiyaam laysa al baddu laysa al ibra bil baddi tàmbali léeg rafetaay gi coow lu bari li loolu amul solo lool lool lool te solo sa dëkk mi ngi léegi ci lan ngay mujj yow moo tax ahmad ibn hanbal boo ko mosaan a wax yow jàmbaar yow nangam ñu innama al a'mal bil khawatim mbir yi daal moom mujjantal ga rek moom moo tax ñuy wax kon mbokk yi nit ki nekk góor wala jigéen wala mag wala ndaw nit mi ngi aju ci farlu gi nga xam ni nit ki farlu na ko ci xam fa mu jëm ak góorgóorlu ci lam bëgg Abu Hurayra sayyidul xutaam al asbaab ah asiqat asab الحافظ الورع البقي العالم الرباني أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي ولما تسير أعلام النبلاء الإمام الذهبي من ترجمة أبو هريرة يكتب نفسي الباب تخلي نفسي مريا نطب ولا نفسي مريا نطب تخلي أبو هريرة borom xam-xam yi juyoo nañ ci turam dëgg ndax am nañu wax ni Abdourahman ibn Sakri ak Dawsi boobu moo gën a ci saxam am nañu wax ni Abdourahman wala Abdullahi ibn Hund ah am nañu wax Abdou Sam am nañu wax leneen indi na ay tur yu bari yoo xam ni dañ ko doon wooyee waaye ba ci gën a siiw mooy Abdourahman ibn Sakhrin ad-Dawsi Abu Hurayra tudd yàlla dàkkantal la te loolu dinaa koy wax saa su ma yeggee ci kàddu yi loolu du aaday naa comme ñun niñ ko boogee dëgg la xeet wu nekk am na aadaam ah am na ñoo xamante ni ñee ñee seen sant kër la ñuy wuyoo mooy seen aada am na ñoo xamante ni ñoom seen seen yaay bi tuddee baay tuddee am na ñoo xamante ni ñoom nit ki dañ koy jaay ci turam waaye l'islam ci boppam li mu yoonal mooy nit ki ñu koy askantal moo tax alimamu nawawi rahimahullah bokk na ci bunt yi mu ubbi te téere ba di al azkar wala riyadu salihin benn téere yi ñu wane ni maanaam nit ki dafa war a am kuliya même bu amul dox même bu amul borom bu amul doom ndax gis nañ saxaaba yu góor yoo xam ni amoon nañ kuniya ci amuñu soxna sax sax saxaaba yi jigéen kadalik kuniya mooy nit ki mu jël dakkantalu doomam booba nag xëy na nit ñi ñu ngi ciy taamu taawu nit ki nekkul force déedéet nekkul force nit ki kaw rek kaawam la war a jëm xëy nit ñi moom lañ gën a saamu te moo gën a mucc ay ci law fitna ci nit nekkul ni nit maanaam nit ki day saamu par force rek yiw la war a doon déedéet waaye li ëpp dañ doon jël sa saaw comme ni ñuy wax yéen bi abul xaatim ak li ñuy wax amal ñu ko tax baa xasin ah comme ñu ne abu saïd al xudri ah ila axiri kon abu hurayrata aw kunya la mun dàkkantal te loolu sax mooy teggin nag loolu sax mooy teggin mooy fekk ni yëg dal ko dàkkantal nga xam ne bu fekkoon nit ki taawam la bu dee góor la ah kon bu doon doomam bu jigéen mooy taawam bu tudd xafs dañ koy wax aba xafsin ah bu fekkee taawam muhammad la nga ne aba muhammad ah wa aba yaxya aba isa ila axiri kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom moo dàkkantal Abu Hurayra Abu Hurayra Abu Hurayra dana xëy moo gën waxati Abu Hurayra yonent bi waxuma Abu Hurayra Aba Hir la ma wax moom moom Aba Hurayra muus mu jigéen daaw day laaj muus mu góor ndax muus mu góor dana mu jigéen ni mu Aba Hir moo tax dana wax ni bu ma kenn waxati Abu Hurayra dañ wax Aba Hir ndax yonent bi dafa ma waxee Aba Hir ah daf ne wa zakaru xayru min al unsa muus mu góor mi kay xanaa moo dana muus mu jigéen ni ngeen Hurayra la mu jigéen léer di góor loolu te am na wax ñu ëpp rek nañ wax góor ak jigéen kon loolu moo nekkoon dàkkantalu Abu Hurayra léegi lan moo tax moom dàkkantaluñ ko ab ab ab gaawam wala ab nit wala di ko dàkkantalee lu mel nii kenn di ko yonent bi dàkkantalee loolu amagul soxna ñaar yonent bi salaa sallam da koo dàkkantalee loola ngir mbir moo xam ni am na Abu Hurayra mu ni benn bis Abdullah ibni Rabia daf ma laaj ni ma wax yow lu tax nit ñi naan la Abu Hurayra xam nga nit ñi léeg-léeg nit laaj la benn laaj nga ni hey yow ñu ne nga ma de comme ni Mawla di waxee yow ñu ne nga ma de waaw Abu Hurayra borom xam-xam bu mag la woon waaye nag da doon kaf na ku amoon jàmm ak nit ñi la maanaam paas bi noonu laa ko mën a def ah yow ñu ne nga ma de mu ne ko déet man kay ñemewuma la kay waaye nag damay laaj rek mu ne ko damaa nekkoon ab sàmm li may sàmm ma am muus mu nekkoon ca kër ga mu jur ay doom ma jël doom yi di ci teg sama mag mi di ko dugal ci sama biir loxo mbubb mi nee na nit ñi dem ba dama tàkkantalee Abu Hurayra foofu la mbir ma tax tàmbalee moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di ko koy tàkkantale mu ne fa kan naw nii biha te loolu sanad bi lu wér la mi ngi sunan imaamu Tirmidi ci kitaabul manaqib ibni Saadin ñu ko génn na ko ci at-tabaqaat kon Abi Hurayra radiyallahu anhu loolu moo nekkoon tàkkantalam doonte nag amoon na ay doom Abu Hurayra amoon ay doom waaye nag Abu Hurayra lañ ko doon dàkkantale am na saxaaba yu bare bare yoo xamante ni tamit seen dàkkantal nekkul seen paa wala seen nangam waaye leneen la ñuy dàkkantale ala kulli xaal dàkkantal nekkul force nekk na rek dàkkantale paam wala ila axiri dafa ngeen Aïcha radiyallahu anha amul woon doom waaye ñu ngi doon ummu abdillah ndax sëram li ñuy wax Asma binti Abi Bakr mu am doom mu jël doomoo ko daal di koy def ab taawam ñu koy wax ummu abdillah muy yaayu abdillah kon abu hurayra mi ngi noonu waaye nag yéen sooda la abu hurayra doon daj pour ànd ak yonent bi alayhi salatu wasalaam parce que fii mbokk yi bind bu rëy la génne mooy li ma tàmbalee tànk maanaam bis bu mu toll fenn ba tax mu décourage parce que bul fàtte ni abu hurayra bi muy tuub ci ci aamu xaybar booba nee na maa ngi am trente et quelque trente et quelque fanweeri ak te xam ngeen la fi fanweeri ak ku ko làq ci ginnaaw nekkatoo ba ne bul fàtte ni mag saxaaba yi ay mag la ñu woon de ñi jàng si yéen sa salam abubakar xam ngeen ne ñaari at na ko yéen si bu magee woon omar ak ya ko yéen si bu magee sax bu bari lool te yéen si bi mu wàcc am na ñeent fukk kon abubakar am na trente huit ah loolu ngay gis xam ngeen ni papa yi abubakar bi muy tuub dugg ci l'islam di commencé di jàngantu boo mi di am soixante douze ans du toog ak lu toog Salmaanul Faarisi moom ci ñett mag la bokkoon ndax moom borom xam-xam yu wuute wuñ ci téeméeri atam moom teg na ndax mat na ñaar téeméeri ak juróom fukk ak werante ci foofu la nekk waaye téeméeri moom topp na ñoom xakim bi dafa gaaw ak ñeneen ak ñeneen ñeneen ñoom bi ñuy tuub fekk na def nañ ci kedd bi juróom benn fukki at doo ko tuub kon mbokk yi soixante ans jàpp naa ni mag ñi ko tuub ñëw dugg ci l'islam ba noppi fas yéene futtee koo góorgóorlu mooy nekk al ibratu bil xawaatim wala ay tamit mbir mi nekk ci départ waaye su mujjantal ba lan ngay mujj yow. Abu Hurayra bi mu tuubee dugg ci lislaam ah tuub la goo xam ni dafa yëg ni moom kat am responsable la man kat nag damaa yéex a yegg si. moo tax dinaay faral di joxe benn misaal dinaa leen gis ngeen dogu ñëpp ñaar mën naa def loo gis ne dogu ñëpp ñàkk gis nga nit ki bu dogoo la xam ne dama bëgg a def nangam gis nga bu nit ki yëgee maanaam nga def ko ay xor ñu ñam ba ba xol bi jóg mer la xaw a yëge wala nit ki nga mer loo ko mu mer léeg-léeg nit mën naa mer ba def yëgi sax bu mer dee daal di koy réccuwaat kon dogoo yëg ak mer ba te yëg ak mer moom baaxut waaye dogu nag baax na nit ki bu ko defee yàlla mën na koo wërsëgal yu bare bari xanaa yéen a ngi fàttali ko xista bu ma fi nekkili woon benn paa boo xam ni doomam la yamal mu dem daara doom ji dem daara dellu si mokkal alquran paa bi ni man pourquoi sama doom bi mokkal sama ko jum maa gis sama kanam li mu def ko mokkal dinaa ko def te paa bi daga làq nan juróom benn fukk ak lu teg allahu akbar juróom benn fukki at mbokk yi ndax ku ko làq moom li ngay def dana bari mu laxas gën a jàng jëm kaw jëm suuf mu waxanteeg soxna yi te yëpp waa xëy lu am fii bokkuma sax ay réew jàmbur fii fii du Sénégal fii damay jàng départ dem jàng nekk daara ja ijji rek xaw na caa def lu mat at ak nangam ijji rek ijji nekk daara ja nekk daara ja ba mokkal ko baax parce que ngeen ci yaakaar na bi ñu koy nekk bi am nañu ne ci jàkk yi ñu ko fekkee woon mu nekk daara ja ba mokkal Qur'an ñi bindee nga ni gaay naan am naa doole ñeme nga ma di gaay naan ñeme nga ma kaay ñu bëre comme ni ñu koy defee mu ne ko ñeme nga ma kaay tàmbaleel baqara ma tàmbaleel naas ñu dox daje ñu sari daje ñuy wër kër gi ñuy daje daje daje bis bi ñu daje ci ngoon gi ci la baal baax bi ñu baree quran ci tàmbale baqara tari jëm mariam ci tàmbale naas jëm ñu dañu daje ci ngoon boobu ci la baal bi génn maanaam da ngay xam ni gis nit ki lépp lu benn waay dafa génn këram jëm sàkku jëm xam-xam jàng jàng jàng jàng ba sonn affaire bi dara mënut a dugg nga xam ne ci am na mbokk mu ne ma am na benn paa bu ñëwoon kooki ndeysaan def na ko fukki at ak juróom mënut a fexe dem man alquran waaye nag ah inna allaha la yudiu ajra man ahsana amala te fukki at ak juróom ñu ak jara ñee alladi yaqra'u alqurana wa huwa yatataa'u bihi ma'a samrati alkiram albarara ah ki nga xam ne day jàng alquran ah fa lahu ajran ki jàng alquran affaire yu yombul ci moom muy iddika boole ñax koy xet sonn ci yéen di yàlla mu ne yow moom yàlla bu lay fay ñaari tiyaaba la lay fay tiyaaba biñ la war a pointé yàq say morom ba noppi suñu borom fay la sa coonam ñax mu ne allahu akbar waa ji mu ñibbi si ba jub dëkkam daal di romb teen bi bi mu rombee teen bi mu naan ba noppi jëm tëdd di noppalu mu seen teen bi ci goj bi jaar xam ngeen goj goj mooy lan mooy goj tubaab la de bâche bi goj bi bâche bi nga xam ne mooy ànd ak buum nga di ko dugal ci biir teen bi xam nga bu dee buum la nga di ko liital ci bindab teen bi bu yàggee dafay def heure bi foofu di wane ne fii la buum bi doon jaar mu ne waaw rëdd yi lu ko def ci teen bi ñu ne ko xanaa buum moo fi doon jaar mu ne buum ji moo mën a rëdd fii ba def aw noox noox mu man ko mu ne kon ndekete lu war a jéem di nga ko man damay dellu jàngiwaat dugub këram mu delluwaat yéen maanaam mbir mi question la dogu la ak gëm-gëm Abi Hurayra radiyallahu anhu li mu ñëwee Madina nag dafa takkoo ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mulaazamata dënni li saaxibihi gis nga takk leer ni muy takkaloog yow xaw tuuti ko ni la sañ a wax ni noonu la Abu Hurayra doon takkaloog ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yéen yonente bi lu bari la du takkalikoog moom li cay commerce commerce wul li cay yittoo ay takki soxla takki soxna dindiwul kër amul lenn moo tax gis nga ndekete lekk-lekk doomu aadama suñu borom dana ko xañ yu bare bari fekk ni ñu koy farataaree lu ko gën a rëy abi hurayra mu ni bokk na ci li may santee suñu borom mooy nasatu yatiman wa hajartu miskinan su ma juddoo dama judd nekkub jiri ma gàddaay nekk ku ñàkk loola bokk na ci li ma yàlla tàggatal dama am li ma am tey léegi te yoote yoo rek laysa al ibratu bi sabq li ñuy considéré nekku nit ki dafa jiitu léegi nag la jiitu baax na bu fekkee da ngaa jiitu jiitu waale waaye nag boo jiitoo ba noppi di yeexantalu sa borom ñëw raw la am nag Abi Hurayra ñeenti at wala ñetti at yim def ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ëppale lu mu soloo ci xadis yi ban amul werante ci ni ci diggante saxaaba ya kibaaru saabiuun juróom ñetti téeméeri nit juróom ñetti téeméeri nit soloo na ci Abi Hurayra radiyallahu anhu allahu akbar ay saxaaba la am ñoo xam ne ba yonente bi nekk ca Màkka ba tey dañuy wëlbati ko ñëwaat ci moom al imaamu Dahabi ah siyaar bi ñuy tarjama ak yooyu nga xam ne moom dafay wax ci xam-xamu xadis la mu xadis mag la moom it indi na am mbooloo moo xam ne jëmbul xabiir ñi nga xam ni Abi Hurayra ñoom solo nañ ci ki nga xamante ni mooy Abu Hurayra tudd na ay tur yu bare bare bu ma delloo ci li muy leeral loolu kon ñi solo ci moom mat na daanaka juróom ñett téeméeri juróom ñett téeméeri ci ëpp na ko sax sax moo fi ni mu nafi nee na dégg naa Abi Hurayra mu ne amul kenn ci saxaaba yonent bi koo xam ni solo na lu toll li ma solo kenn rek ma jege muy Abdullah ibn Amr te li ko ko may mooy man dama doon mokkal yam sax moom da doon bis naa xel ñu tàggatu woon na de mboolem xadiis yi mu mokkal yépp moom Abi Hurayra bu déggee rek tey jeex na Abdullah ibn Amr nag da doon bind xam ngeen moom ngeen gis jamono yi ñuy wax ci fan la sunna jaar ban bind ko benn bis da doon bind gars yi ñëw ko yow yonent bi day wax lii tey bu subaa ñu nataxal loolu mu waxaat leneen affaire bi saxata ko mu ñëw laaj yonent yonent bi ni ko bindal li nga xam ni génn nañ ko lu dul dëgg du ci génn sallallahu alayhi wa sallam kon Abdullah ibn Amr mooy li ma la wax sànq wal muktiruna fi riwayati alhadith wal athar abi hurayrata yali ibnu amar ibnu amar yani abdullah ibnu amr yali ibnu amr kon tey jii boo seetloo lay sànq ndax yaakaar naa ne xel xeyru maxqul imaamu jàkk bu xamul fii abu hurayra la mën ta nekk daf mën ta nekk parce que comme li may wax nit nit ñi sax ku xamul abu hurayra amul moom kay da nga ci da ngay am loo ci dégg am loo xamante ni umpale nga ko yàlla defal ko mu nekk koo xamante ni aw turam dafa siiw lool bokk na ci li nga xam ni may na ko ko mooy nit ñi dañ koy bëgg te loolu dina ñëw léegi incha allah mbokk yi ñu xam ni géej bii nag li ko may mooy benn proverbe bu arab di wax inna al ilma la yu'tika ba'da hatta tu'tihi tu'tihi kullan li nga xam-xam tus du la ko jox lu dul dañ koo jox sa lépp mu doog lay jox tuuti xam nga su ñëwee la xam-xam te lépp la koy jox mu jox la tuuti bu ko joxul sa lépp nag kon bu ko jox tuuti loolu dara du la jox daal maa noonu lay xam-xam li nga am lépp nga koy jox mu jox la tuuti wa ma utitum min al ilmi illa qalila tuuti ki nga jël sa énergie bi yëpp jox ko mu jox la tuuti kooku yow bu fekkoon da nga am looy denc kon ndax yaakaar nga dana la jox daal déedéet لا تعطيك شيئا ولو قليلا حتى تعطيه كله من ليش ما كاي جوخ من داك لاي جوخ ابسولين ابي هريره رضي الله عنه يس مام لا جوخون حديث الله اكبر ابي هريره نينا امنا بن بيس سي بيتي ها mu dem ba jamono soppeeku mu sol mbubam coton yor musuwaaru coton nee na ñandu mu bëgg a ñandu mu ñandu ci coton ba noppi xool yére bi mu ngi baxil baxil waaw àddina ngi bëgg a soppeeku waaye Abu Hurayra ñandoo coton mu ni maa ngi fàttaliku ay jamono fii laay jóge ci jàkka ji jëm ci kër néeg Aïcha di gën te jàkka jéeg néeg bi dinaa fi daanu lu mat ñetti yoon di xëm ci kaddi kaddi nee na léeg-léeg nit day ñëw toog ci sama kaw di yóotu sama nopp bi pour ay nopp ak ay mocc dafa ni jële damaa jàpp mu ne dara jàpp mu fii ko ma doon rey waaw akbar fan la nekkoon ndax yi da ko jala da ko kër liggéey yiwu rafet ay gàttam bayu boonam di ci ay garab yi tàndarmaam moom ñëpp ku fay dem muy nag waaye am naa fay la ju doy ni du ma ñaan kenn lenn ku ma jox addiyéena addiyéena doy na di mooy kado kado rek lay tekki koy tuur leneen fii nag boo di dañ koy tekki leneen loolu lay tekki waxoon naa ci nag yi paase addiya mooy cadeau te yéen it waxu leen waxul dee leen joxe addiya dee leen joxante addiya la wax joxante joxe nag bokkul joxante mooy tey yaa may jox subaa ma jox waaye am ku koy féete woon ñu di ko jox rek yéen loolu amul yéen ci sax sax awee kanam jox muy joxe Abu Hurayra nee na léeg-léeg daana xiif a xiif a xiif ba dootuma àttan sama bopp nee na ma seen benn waay di ñëw rek ma topp ko commencé qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam haddathana fulan an fulan qala rasulullah li bari ay hadith xam nga nit ñi parce que ñoo bëggoon a dégg wax yoon sallam mu ne ma yaakaar ni waa ji dana intéressé wu ci moom su ko defee muy soxla ay hadith ma di ko dolli ndax bu ko defee bu fekkee am na lu ma mën a dimbalee ma lekk ko ma lekk benn bis lay sàmm def ko Omar ibn Khattab nee na ma topp ci Omar bu ma waxee rek ba pare rek xam nga bu ma dolli ma dolli leneen Omar bi dem ma topp ci ginnaawam rek ñu dem ba buntu bëram mu ne bismillah tuuti ma taxaw ci buntu ma taxaw taxaw taxaw taxaw gisuma lu ma xam ma nga xaaral ma dee ko lu ma la ñu daje Omar ni ko xamoon naa ni da ngaa xiif waaye nag sama kër lu ma la jox dara ba ñëw woon subhaana rabbina al aala mbokk yi xool lu Omar ibn Xattaab ak ni mu toll ak ni mu koy déggee biir këram lu may Abu Hurayra lu mu dugal ci biir yi ñëpp wala sax itam nit ci bu doon ci jamono yi ñu misaal ko amu ko wala yoon ni mbokk yi am na jamono ju metti woon de ah ñun li ñuy dund neex na de neex na trop trop ba jéggi dayoo moo tax Abdourahman ibn Awf ak Omar ibn Xattaab ak ñeneen man kii ne lekk bu neex dañoo wëccax seen loxo jooy dund nañoo yonent bi lekk ko dund nañoo Abubakar lekk ko ñun mbaa du suñ siyaabay Allah xëy la ñu yàlla bëgg a jël fii kan ci ñun mooy xëy rek jul mburu mu waw fañ dafa def ci suukar leneen ba bu suukar mu ngi def ci xorom loolu de boo ko nekk ñëpp yi ñu ak ñëpp dégg ku ci xëy dégg woo ñëpp yëpp ñëpp yëpp ku ci xëy nekk woo mbaa añoo ñëpp yëpp ku ci xonle mbaa nga dëñ ni ñëpp yëpp yow yaay kan ba doo xiif ba doo mar yow yaay kan ba doo am xool xoolal saxaaba yi ñu dund dundee li nit koo xam ne kii bay wañaaru bañ ci sax ñi ah wóor na ni kii amul lu nekk tey kenn ku ñëw kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dama xiif yonent bi ni ko demal ci soxna yi ñu xool ba xam soxna yi xool ñoom ñëpp kenn ci amul lu mu ko jox ñaata soxna juróom-ñeenti soxna nekkoon ci kër gi te kenn ci ñoom amul lu mu mën a may gan gi mu lekk nga benn saxaaba ba jël ni ko baa nga yóbbu ko mooy wane kon mbokk yi gis nga neex neex yéeg nooy nooy yii dalul xel de dalul xel de aw mu metti mën naa metti nag ba mu yàgg mu neex ndax loolu moom lu nu xam la ci dund saxaaba yi Abi Hurayra nee na daanaa ànd ak benn waay nee na du ma laaj waaye nag ku ma jox danaa jël ndax dama doon jàng li nga xamante ni mooy xadis yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na léeg-léeg daanaa dem ba damay jël li nga xamante ni moom mooy xeer ah di ko tax sama biir bi nee na benn bis Omar romb ma xaw ko woon beneen par yonent bi romb ko sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nag moom xam ngeen jàngalekat la bu bu xam nit ñi bu xam nit ñi nga la jigéen day jóge kër borom kër ak si expliqué borom yonent bi problème bi muy dund balaa muy wax rek yonent bi ah yow de sa problème nangam la parce que dafa xam nit ñi loolu nag ngeen ñoo kumpa déedéet xam nit ñi la mooy jàngalekat yarkat daawakat faw nga xam nit ñi ah waaye boo xam ne luñ la waxu dëgg xamoo ko yéen saari sax ne dama xool Abu Hurayra nga xam ne kii daa xii ndeysaan mu daal di ko kaay mu ñëw nee na bi ñu demee ba ci kër ga ñu daal di fay fekk benn këll këll wala lege mu def foow yéen bi ne ku fi indi këll bi ñu ni ko diw sàngam waa kër diw sàng ñoo rattoon seen gàtt yónnee la sa wàll may leen mooy addu bu doon doxante rek waaye nag waxuñu dañu dala jox rek ngay jee nan ngay joxe ngay joxe waan yow yéen bi ni ko kaay yóbbu ko ci ahlu sufa ahlu sufa nag balaa ñu koo jàll mat naa leeral ndax li tax mooy dafa am ay ak ak ak ak jaay jaay laa ko mën a tuddee koo xam ne ñenn ci nit ñi dañ ciy làqatu ci ahlu sufa ndax ay ñenn ci ñi nga xam ne dañuy def ay mbir yuy génn sariya bi ak sama sufyanke boo waxee diini tegtal ahlu sufa ahlu sufa ahlu sufa foofu nag jotaay yii ma la bëgg a defal déglu ko te nga jàpp ko bu ko fàtte dana la mën a jëriñ wala yow woon ñu def li ci nekk mooy suuf ya bàyyi koo wul ci ahlu sufa loolu wérul dellul ci al mu'jam al wasi dellul ci al nihaya fi gharib al hadith dellul ci téere fayrul xabaar yi ba bu ban mu'jam ba al bahr al muhit ak mu'jam al wasi ak lépp boo ci dellu suufiya ci boppam originalu baat bi bàyyi ko wul ci ahlu sufa boobu la delluwaay bi njëkk a yàq ko muy benn ñaareel bi mooy suufiya ci boppam amul woon ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñetteel mooy ñen ñooy ahlu sufa ak luy sufa soo demee ci jàkka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme jàkka ji moo nekkoon mawal jamia liman la liman la mawa la islam amagul doole te am ñuy tuuti ak ñu amul kër fuñ dëkk ci laaxir yi ñu wutal leen benn ruq ci jàkka ji boo xam ni ku amul foo ñëw dëkk ba ngay ñëw ku néew doole ba ngay ñëw étranger fa lay nekk wala Abu Hurayra bokk ko beneen bi ci des mooy ahlu sufa suuf yéen ci la koy def lu muy dund dundam ci yëpp ci ahlu sufa yëgal ni Saad bi Waqaas nam ca la bokkoon Abu Hurayra ca la bokkoon saxaaba bu ca bokk rek ba yàlla baaxee la gàtt dañ koy génn kon moo lay wan ne lan la koy dugal nit ki mooy situation leneen bi ci des mooy li nga dégg gars yi di wax ni ahlu sufa àggoon nañ ci jaamu yàlla pour pour réer suuf yaante ba nga xam ni yeneen bi ba mu rañaanee ci asamaan sa ñëw yeneen bi daa yegg di fekk waa ahlu sufa bi reetaan mu ne lu ngeen di ree ñu ne ko xanaa li sa borom doon wax ak yow démb de lañ doon dégg moo tax ñuy ree loolu kadibun baax ay kàcc la loolu amul déedéet loolu amul déedéet kooku am na saxaaba yu gën a am maqaama ñooñu te bokkuñ ci ahlu sufa ah dañu ne ndax xamuñ li suñu borom doon waxante ak ñoom ah summa danaan fatadalla fa kaana qaaba qawtayni aw adna fa awxaa waxyu la wax ila abdihi ma awxaa bal sax waxu ko nag fam gis nga dafa am dox si yoo xam ne waxu wala démontré ko daay waaye dafa weddi sax alquran fa awxaa ila abdihi ma awxaa ma wax yi sama jaam bi la ma ko wax yi kooku fekk na sama diggante ak moom bu doon lu ñuy xam ne ba koy wax ci alquran bi waaye waxu ko sax fam ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ay détails la yu bare bare bari jàpp ni tamit suuf alu suuf man da ngay jaamu sol yére yoo xam ne façon lay doon day weer day nangam déedéet loolu amul amul ci l'islam benn façon yére bu ñuy jaamu di ko sol amul ci l'islam alu suuf fay daawul def noonu yii kon ay mbir la yoo xam ne yu mat a bàyyi xel la day yeg sax ngay dégg rek ñu jàpp ni alu suuf ma sax seen daraja bu gën a kawe sax saxaaba yaag abubakar ak ñoom ak ila axir yi wax yi ñuy waxoon buñ la ko waxoon sax da nga koy def moo tax ñu ne ci mbedd bi rek ñoo xamul li li baal yi ci wund li mbir yi ne ci biir waaw am na mbir yu ne ci biir yoo xamante ni boo ko waxoon nit ñi da ngay ji rek loolu mooy yi am kon ahlu sufa yi lañ meloon ahlu sufa nag comme ñoom ay étranger lañ amul lu ñu liggéey ay doxalir lañ ci dëkk bi su xéewal ci la yéen sax daf leen di yónnee ca loolu lañ doon lekk yéen sa salam ni Abu Hurayra jëlal këll soow bi nga dem jox ahlu sufa ñu naan subhanallah abu hurayra nee na maa ngi maram maram mar ba àttan na sax sama bët fii te mënu maa dox waaye xoolal dégg li gën naa ko duuxat duuxat naa ko nee yooyu amu ci de dina ma yëkkati yóbbu la ahlu sufa ñu naan nee na miñ naanee ba noppi affaire bi def ni affaire bi defee ma daal di kontaan daal di koy indi ci yéen fasalam ni ko ah mu ne kay yëf yi def na mu ne ko ku def mu ne ko xanaa man ak yow yéen bi di ko naanal mu yëkkati ci naan ba seggi yonte bi ni ko dolli mu yëkkati waat dolli te ñetteel bu ni ko dolli mu ni ko bu ma dolli biir bi lay jëfee ko dina koy ci mu war a jaar yëpp dugal naa ko dafa dafa mar mu ni ko bu ma dugaatee ne biir bi lay jëfee li ma am lépp lépp lépp jóor naa ko yonte daal di weetaan sallallahu alayhi wa sallam kon te affaire bi def na waaw mbokk yi mbooloo moo xam ne léeg-léeg dañ leen doon gam-gamle ay soixante dix et quelques personnes léeg-léeg mu bari la lañ wàññi ndax léeg-léeg kenn bokkoon ci daal mu génn ci gën la soow juróom ñaar fukki waxuma ay góor de naan ba man di jox sa morom comme ni Abu Hurayra def loolu min barakaati nabi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi naan affaire bi des mu delloowaat ko rak satu jaabe ba soriwul ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni imam fële ibni kathir moo demee ci al bidaaya wan nihaaya ba muy indi ci yéen sasalam dafa indi buntu boo xam daf ko tuddee barkeel bu yàlla doon barkeelal yéen sasalam aw ñam indi na ay xadis yu bare bare ak ndox ak ila axiri Abi Hurayra mbokk yi bu xiroon la ci xam-xam gis nga xam-xam nit da koy bëgg ñun noo ngi fàttaliku biñ daan jàng am na benn règle bu ñu suñu benn sëriñ doon wax lu am solo la da wax ni xam-xam dëkkut kër baayu kenn dëkkut kër yaayu kenn kër baayu ko nag farlul dëkk nga nangoo jàng xaaka wax dëgg kenn bu borom xam-xam boo fi gis ci àddina nag muy wax yëgal ni li muy wax ci biir ñëwul lii bu ko yàlla waxu ko na ko jàng noonu na ko jàng de te bu leen dimbali yàlla dana ñëw nag participé waaye nit nit mun sa wax mukk du la jommal da nga naan kii moo nangam buy yéemu ci mukk dafa jàngi rek de dafa jàng donc donc wax yi wun ko ko Jibril wàcce suñu borom téye ko gént tëddu gént kon dogoog farlu abi bu rey nag dogoog léeg farlu gi dafa yeggoon koo xam ne néew sa expliqué benn bi yéen saa dalam dafa toog di ak Abu Hurayra ni ko waaw man as'adu naasi bi shafaatik àllaaxira kenn moo gën a am mérite ci nga ràmm ko. yéen ci dafa mel ni maanaam dafa am question yoo xam bu ñu ko laajee da ngeen di ko ci yéen ci biir su xool ko ni ko maa ngi doon yaakaar ni amul lu muy njëkk a laaj laaj bi ku dul yow mu ne ko lu tax mu ne ko damaa gis ñu ngi xiiree ci xam-xam ba moom morom kon gis na jàngalekat bi dem na ba xam ni ndongo bi dëkk xiir xiir bu ëpp ah ba yegg fenn. maanaam ñu daal di joxoon naa leen ndax nit lu la ci xam-xam jaral na ko ñoom sànq ba génn noonu fekk ndongo ba nekk bari mu ñu koy ñi ñi tëdd noonu da ngay dugg rek jóg mu baax bu doon ñu ne da nga natt ci satu wax nangam nangam boo ma gisatu mu day yow donc amoo fi xam-xam moo tax ñun dara duñ ko xam dinañ benn barke dara duñ ko xam mu daal di yéen ni malaanam dem tëdd fële ci saa waa ji dalam xam-xam lay bu fajar mu jóg bi mu jógee mu ne ko yow xanaa yow laa tëddoon buntu bi dem mu ne ko waaw mu ne ko yow foo def ne ko déedéet li ma yore laa soxla waaw bu ma ko soxlaa ko duma ko ñëw ku nekk dafay am ab gëm-gëm am lu mu bëgg. borom xam-xami salaf yi daanañ yegg ci sàkku xam-xam ak kër boo xam ne. am na benn borom xam-xam nee na kenn ci ñoom dafa ànd ak taalibeem pour wan na mbir mi ni mu taree woon. li ci dóor taalibe bi naa ko ca dama samay naan fekk mi ñu ko daal. parce que booba xel mi nekkatu ci moom ndax yàkkam bi parce que xam nga ñoom ñoo jàngi ñun bëgg. ba nga jékki-jékki naa borom de imam Bukhari ma ngay tànn tànn léegi léegi léegi nga départ dem fa. nga pare ñu ne suba ci fajar nga sëngee wala imam Ahmad ibn Hanbal di joxe dara te xam nga ni boo yeexee rek nga fanaani ko nga gis ñu yóbbaale moom bu tere ak màccam fanaan ko pour bañ koo ji nga xam nga ni ñoom liñ doon jàngee nekk woon lool ci seen jamono ndax mbooloo moo xam ne mën nañoo mat ay juróomi junni nit am ngeen Bukhari ak ñeneen ñeen du am loolu saytu bi fii lay toog rang bi yegg ci xalifa yow moom di nga jàng ci ba ñibbi boo yeexee baatu sëñ bi doo ko dégg seer bi lay taxaw di wax am ko taxaw fële di wax am ko taxaw fële naan boo seer bi waxee ngeen bu ko déggee mu wax ba ca kaw kële ñett di ko ba yëf yi yegg ndeysaan solal ñun micro yeeg yi enregistré rek yi nangam ndeysaan loolu ma yomb waaye di forme bare ba mën a sëkk commencé jax abi bu nee yéen sant la bi ni ko foogoon naa ni kenn du njëkk laaj laaj bi pour yow mu ne ko ki gën a yey yéetoo sama ramu àllaaxira mooy ko wax laa ilaha illa allah mu sell te dëggu ci xolam kooku gën a mérite am mérite ci maram ko àllaaxira xarit boobu xarit la bu wér limal buxaari génne na ko ibne sahabi ci mu génne na ko abi hurayra ci farlu gi ak góorgóorlu gi yeggoon na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal ko ba dootul fàtte allahu akbar boobu nag xista bii nag ma bëgg a wax dafa ñëw ci ay riwaayaat yu bari moo tax ma bëgg la koo tënkal ci riwaayaat yooyu ci wolof benn riwaaya bi ni mu demee mooy Abi Hurayra nee na te yi may wax yëpp riwaayaat yu wér la dama yonent bi daf maa fekk ngay ñaan di wax yàlla yàlla nag ma dimbale ma nekk fóore xeet bi lu ma jàng du ma ko fàtte yonent bi dégg ñaan ko ni amiin affaire bi commencé am na beneen riwaaya nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ma ñëw ni ma wa Abu Hurayra yow damaa seetlu gars yi léeg-léeg nit ñëw ni man damaa soxla min daan xam nga comme julli ñu dañuy am ay maanaam alal ji dafay nekk muy baytul maal ku am aañu wax ko yem sa salam ku demoon ca xaram jox la sa waal yow damaa leen ni julli ji ñëpp a ngi laaj yow rek yaa dul laaj bu yow lu tax doo ñëw di ma laaj comme say morom ni ñuy laajee mu ne ko man dama laa bëgg di laaj lu julli samay morom di laaj xam-xam laa bëgg nga di ma ko jox allahu akbar donc lu xalaat ni ñu neexee ji leen yee ji leen yi alal ji màng mi nga xam ne yow mën ngaa dem benn xare rek ñëw am ci ay millions su fekkee amoo saxaaba lu ko waral ndax noon yi buñ leen gañee bu ñu séddoo defe naa suma jumut xaadisiya la wala lu jóge xaadisiya si jamono amar ñoo xam ne saab ñoo xaas am na xeex boo xam ni saxaaba yi biñ demee ba seetlu teg taabiul yi ca demoon kenn ku ne nekk li nga am yow kese rek ay millions la ay millions kon loolu bari woon na lool lu tax doo ñëw laaj si ma mu ne ko man damaa bëgg di la laaj xam kenn saa dara ni ko yor nga benn mbalaan fekk mi ngi yoroon benn mbalaan mu daal di koy jënd ñu ne bi mu ko dindee ñu mel ni ku ci muuru mu ne maa ngi sant mel ni affaire bi ay sànq lañ moo ciy dox ci ci ci ci ci kii bi ci muuraay bi fekk yonent bi ñu koy ñaanal sallallahu alayhi wa sallam nee na ker bi mu muuree muuraay ba amut lu ma dégg ci lu may fàtt yeneen riwaaya bi yonent bi da doon waar waaraate li muy waaraate mu ne kan mooy ñëw muural ma ma lay wax ak nekk ni taxaw ci naaj bi ba ba ma xaaree ci li may def aboore mu ne mu jëkkati di muural ko bi ma paree mu ne ma tàllal sa loxo ma ñaanal la mu daal di koy ñaanal lépp lu mokkal bu mu ko fàtte kooku nag suñu dalu Abu Hurayra la woon te xam ngeen yonent bi li mu doon wax li muy bari bari bari bari bari Abu Hurayra daaw si fàtte dara loolu nag min aajibi Abu Hurayra ci may yi ko suñu borom defoon defaloon na bokk nga xam ne loolu mokkal amoon na ay jamono léegi nag comme ni ma koy waxee rek bi maanaa bu njëkkoon comme jumtukaay yi ñuy enregistré amul woon moo tax suñu borom joxoon mémoire yi ñoo lay mën a jël jamono biñ nee ba mu affaire yi am nag gis nga mémoire yi commencé léegi yéen a ngi jàng français boo boo ni quatre minutes cinq sax mu ne aaluma dem kan mbokk yi baaxatul te mbir yi noonu lay mujj demee rek noonu lay dem ba bopp yi di gën di yàqu rek waaye bu njëkkoon mbokkaloon da doon mëri moom Abi Hurayra radiyallahu anhu kon ci la mbir mi demee muy day léeg-léeg waalantaar yi gars yi ñi ngi may xas nit ñi ñenn ñi ci gars yi naan ah Abu Hurayra li muy wax ëpp na de yow bu ci dem mooy gars yi nga dugg ñetti at nga am ci ci ci ci ci l'islam mën a mokkal lii nga mokkal lii Abi Hurayra mu ne waaw yéen da ngeen a fàcc ni man yonent bi ñaan nga ma ñaan da ngeen koo fekkee wu loolu de muy benn mais da ngeen a fàcc ni yéen amu ngeen ay boutique man amoo boutique mais moo benn mais da ngeen a fàcc ni yéen da ngeen naan sàmmi man sàmmi mu di da ngeen a jabar yi doom yoru ma jabar waaye wax dëgg yàlla nag muy lii ku ko ñàkk doom bi jàng xanaa war naa mën a xam dara xanaa wax na dëgg de wax dëgg yàlla nag wax na dëgg de moo tax ñuy wax naan Omar ibn Khattab da ko doon duma naan ko bul waxati hadis loolu da foo xamut déedéet Omar ibn Khattab kaana yujillu Aba Hurayra da ko doon màggal daf ko jër lool dëgg la nag daanaka daanaka daanaka jiital nag di ko tëgg xam nga Omar ibn Khattab bi mu dee ba nit Abi Hurayra di sottee bu nekk saaraaraara di wax ay hadis yu bare bare bare bare benn bis dafa ñëw ci Abi Hurayra ni ko Abu Hurayra ragalal yàlla Abu Hurayra wax leen saxal lu dul di ko di ko tëgg benn bis nag mu ne ko yow est-ce que jour tel sax ci ginnaaw tànk tànk bi ñu nekkee kër jiw yaa ngi koy fàttaliku Abu Hurayra ni ko maa ngi koy fàttaliku te xam naa li tax nga laaj ma laaj bi mu ne ko soo xamee lu tax ma laaj ma laaj bi mu ne ko keroog ngoon googe ca la yonente bi waxee woon ni ku ma fenal benn fen préparé sa kër safar mu ne mokkal naa ko dëgg mu de Omar ni ko ah kon tax ah léegi moom xam na ni yonente bi nee na ku ko fenal benn fen safara nga jëm ba pare mu ko nay wax saa jël ko mooy kon garanti na boppam waaye wala ajabu kull al ajab mbokk yi Abu Hurayra bëgg ci mu bëggoon yonente bi yekkoon na ci bu mu taana taw xalqa bi jàngale xadiis xaddatani xabibi abal qasim rek rek dañuy commencé woon mu jooy ba tërëb keneen ko laay toogaat xaddatani xabibi abal qasim fekk yonente bi faatu na boobu ñetti yoon da koy répété yonente bi nee na bëgg ci mu bëgg yonente bi du ko may mu mën a wax day daal di jug sol ay dàllam dem ñibbi du jàngale kanam kooku nekkoon na ci fonk yéen si ak dëgg ko sallallahu alayhi wa sallam bal ay sax léeg-léeg doon na wax Abu Hurayra loolu ndax xam ngeen ni loolu tax gars yi di ko jokkaat bas ila yawmina hada maa ngi déglu ak Cheikh Mouhamed Hussein Yaqub xafidahu llah wa xafida jamia al ulama al amilin Mouhamed Hussein Yaqub nee na am na jamono joo xam ne benn saay saay ci saay saay yi daf daan saboote Abu Hurayra yaa ngi dégg boo xam Abu Hurayra di wax wax yu bon yoo xam ni kenn mënu ko nekk ñu ngi ne fi aaxir xayaat yi ci mu jëkkal dundam xam nga su borom ne ko benn wet yi côté càmmoñ ci li ko tàmbalee ci ŋàllu bopp bi ba ci tëddi baaraami tànk yi la suñu borom jàpp wawal ko ba nga xam ni moom day wax ni giñ naa ci yàlla ne bu ngeen jëloon ay ràbb ma xaw rek di ko jàpp ci sama yaram bi côté bi du ma ko yëg ci li ko yëg mooy weñ weñ wu naaw ba tal ci yaram wi day mel aw xeer nga teg ci yaram muy sukuraat sukuraat su yàgg ah it abi hurayra ah it abi hurayra loolu la nekkee ci sukuraat ba dee dikk xoolal mu jëntal bu gan bu ñaaw kii kon ñi nga xam ne tey dañuy wax abu hurayra ay wax yu ñaaw lañ jël kii mu nekk ay bara ci ñoom aysa benn bi dana abu hurayra abu hurayra yow li ngay wax bari na abu hurayra nangam mu ne ko aysa nag bul fàtt yi da nga daan yéesu daaw mu nekk de léeg-léeg nga tusngalu pour xaar yonente bi dama daaw mu tusngalu de léeg-léeg nga dem jënd ay yére pour yonent bi boo ko gisee kontaan man daaw ma jënd yére ci am ku ma koy wànde man da ngaa bëgg a wax ni jigéen temps bi muy jël pour dëggal borom këram mën naa tax yow doo moo kon xaj rek loolu la ko bëgg a wax da nga daan jënd ay yére di bégal yonent bi man daaw ma def loolu de léeg-léeg taa nga létt man daaw ma létt de léeg-léeg nga tus nga lu man daaw ma tus nga lu de waaye yooyu yëpp maa ngi ko doon jël di ko jox yonent bi saa sallam ngir jàng ci moom kon Abi Hurayra radiyallahu anhu sax nag am na benn bis dafa dee tegal ci kaw kii bi sax nag jeex mooy ko jeex sax léeg-léeg nga tal ko te man daaw tal ma jeex man daaw ma jeex kon xoolal wax dëgg yàlla jot googu nga xam ne Abu Hurayra jox na ko njàng moo taxoon mel ni mu mel kon yonent bi alayhi salaatu wa salaam sof bi Abu Hurayra nag yëpp léegi ma ñetti at mun te léegi yëpp ci yonent bi waaye nag am na yoo xam ci xibaaru saxaaba yi la ko jéeg yéegante saxaaba yi ci ñun salaam lañ ci moom ah moom la ñuy wax ni nu mu tuddati riwaaya saxaaba yi solo ci seen biir maanaam benn saxaaba salaatu marom dana ci solo ci moom Abi Hurayra radiyallahu anhu mbokk yi kéemtaanu suñu borom la woon ci bëgg xam-xam borom xam-xam yi dañuy wax ne benn bis dafa xëy gis nit ñi ni ñu sàggane ci xaatu xam-xam comme ñun ñu mel rek mu xalaat xalaat nan lay def ba naxtaan nit ñi xam ko mu daal di waaxu wax benn waay ni ko kaay dugg ñu dem marché bi ñu yëg ba ci marché bi am na yore taxaw taxaw taxaw xool nit ñi jaay ma joxal dikkal yooyu bari lool am na yore jékki-jékki daal di yuuxu yéen waa marché bi ba ma dalee gis ndox ma tey musuma gis ku gën a dox commerçant yi ci biir marché bi ñu ne ma lu xew mu ne miraatam yonent bi ñu ngi koy séddale ca jàkka ji yéen xanaa da ngeen dox du ngeen jëli seen wàll la rek gaa yi faa dox xaar kenn ku ci nekk bàyyi sa place di daw xel yoo xam ni ah miraas la yonent bi bàyyi ñu ngi koy miraas yonent bi lan la war a bàyyi li ñuy miraas loolu dafa rëy ci bopp di gaa yi fëkk ñu góor gu fees kenn jàkka ji xool gisuñu dara lu dul benn bu toog di jàngal Quran ya toog di jàngal xadis ya toog di jàngal ñu ngi dégg Abu Hurayra moom xanaa léegi ay dina da kaa commencé di kër yow jàkka ji dara ñëw fi ni mu ne fekk leen ba kenn ñu ne ko engay fekk nañ ko toog di jàngale mu ne loolu ay miracle yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi allahu akbar xoolal xoolal xool googu xeet yi xool sax nag dara àgg ci gis ngeen takbir yi ngeen gis ci ay yi allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah pour wan la ne dafa xiroon ci jaamu yàlla am na benn borom xam-xam nee na Abu Hurayra bis bu nekk téeméeri junni yoon téeméeri junni yoon dafay sàbbal yàlla na benn borom xam-xam buy nekk li kenn ci suñu nit ci jamono yii koo xam ne moom nee na kéemtaanu suñu borom la sahih Bukhari ni ko mokkal ci une semaine sahih Muslim ni ko mokkal ci une semaine alxuraan moo ko yoo xam di ko ci jamono bii lay dund bi mu paree lim ci teg muy daf daan toppando Abu Hurayra ci sàmmaal su paree daf laa yëpp yëpp ñu Abu Hurayra duma nangu Abu Hurayra jiitu kon jaamu ko tu yàlla la woon bu mag te loolu incha allah ci bind bii ñëw dana gën a leer waaye Abu Hurayra radiyallahu anhu jaamu ko tu yàlla la woon woor kat la woon jullikatu guddi la woon ku baaxoon la nag gis nga bis muy tuub si bis bu muy tuub si bisu xayba bisu xayba nee na danaa ñëw dugg Madina ñu ne yonent bi génn na dafa dem xayba ma fekk benn waay ci jàkk ji mooy jiite rakk bu njëkk mu jàng suratu Yusuf rakk ñaareel bu jàng wayu leen mu tafi jiin fekk maa ngi doog a dégg alquran waaye xam nga dina xam lu mu dégg nag yaa am rek soxkare ñenn ñi nga xam dañuy feese bu njee feesee seen bopp mu mat bu njee feesal keneen mu wàññeeku abu wëree lañ si ko ni diw saw dañ jee mu ne booba dem fa xam ku nekk seen dëkk koo xam ne daa jël benn pot nooxal saat bi jël benn pot nooxal saat bi ñëri est-ce que xam ngeen diggante noox ak noox xam ngeen diggante noox ak noox laay dégg na waral ah noox day nekk ca taatwa dangay jël mot bu mel ne nii motu lan nen kami ci misaal boo jëlee nga dóor ko ba poids bi mu am yëpp mu gën koo génn ca taatwa su ko defee suuf nit ñi génne la nu mu tuddati dama lay jaay marchandise fot booba lay nattee su ko defee fot war a nekk liibar day nekk liibar bu set benn pot bi dañ koy jël dóoree ko ci ginnaaw ba mu gën a dugg ci biir mooy jaay bu lañ ne jaay ma liibar nga yëkkati dugal mooy wayul li mu topp ci alladina ida kaalu ala nnaas suñuy feeseel nit ñi su fekkee ñoom ñooy jël ci nit ñal def kaw suuf day mat sëkk wa ida kaaluugum bu dee ñooy feeseel nit ñi aw wasanuugum bu dee ñooy nattal nit ñi aw wasan wala ñuy feete yuxsirum day manqué suñu borom ne ala yadunnu ulaika annahum mabasun da ngeen yaakaar ni yii xew ci commerce bi nii par hasard rek nag waxuma nag waxuma nag ngeen jóge fi ngeen wax ni marché yu tàkk yeeg yooyu noonu la waxuma noonu de dama ni ñu par hasard rek ngay jékki-jékki nii de suñu borom topp marché yi di taal nii de lu tax taalu kër yi xam nga tax taalu kër yi mooy ne ci marché yi ba muy tàkk moo nekk ci kër yi waaye léegi yi tàkk na fee tàkk na fee man question bi may laaj mooy lu tax ci taal marché yi taalu kër yi man loolu laay laaj dama amul réponse di ngay xam ni demum banque beeg riba beeg affaire bi périmé nga xool sax beeg ci la affaire ma tam pour si nga xamante ni gars yi ko xam-xam nañ ko. kon Habibou Rere nee na bi ma yeggee ca guddi ga dafa am sama benn jaam bu bu rëcc bi mu gis ne daje jaam bi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ni ko sa jaam bi feeñ na mu ne ko kon de daw neex la tey mu gore ndax li ma daje la dàq li ma ñàkk allahu akbar maanaam jaam bi mu ñàkkoon ci guddi gi xëy gi mu xëy dajeeg yonent bi kontaan loo na ko ndeke jaam bi bi mu dawee mu dajeeg moom yonent bi ni ko jëlal sa jaama ji mu ne ko kon de ndaw jaam bu neex la tey ndax man li ma xëy am moo gën li ma ñàkk dem daal di jaam bi goreel naa la goreel naa la te xale yeeg mbaax yeeg ragal yàlla gi yeggoon na ci benn bi jaamam bu jigéen da koo tooñ tooñ ak soññal bi ko kon kon maanaam ñoom seen i melokaan da nga naan lii ndax nit mën a dina ko Abi Hurayra nee na ma yëkkati yàq bi maa ngi mer dara ne dudul ma dóor ko am na lu may sédd àllaaxira te kon bu du wëroon loolu xaaral sax ma jaay la ko mën a fay demal gorel naa la xaaral ma jaay la ko mën a fay gorel naa la maanaam mer na ba ba du faj meram wóor ko ni gorel gi tey kon bu koy def yàlla na ngir yàlla ñu ko gorel naa la demal su ma lay jaay mën naa fay muy suñu borom loolu nag ñu ciy tàggatu mbokk yi ñu ciy tàggatu su ma la bàyyi. xanaa yéen a ngi fàttali ko buur ba ma leen fi nekkale woon ah. nga xam ni mbindaan bi mooy séddale ñeex mi wala xal cuuraay li ba yegg ci buur bi rek kudd gi daal di mooy ñeex mi këpp ci mbubb daa ci génn buur bi xam ni buur yi ñoom kay jëlal ma ci rayal ma ko dañ cee gaaw lool lool lool ñu wax nag yi kaay lañ jël rey ko biñ ko jàppoo sëqatoo ko ba di ko neene yaa buur maa ngi lay fàttali day yàlla nee na wal kaadimiina al xayba yàlla nee na cay sama jaam yu baax yi ñoom day ñoom bu ñu meree ba putt ba putt dañuy wanaasu seen mer wan ko mu jàll dañuy jël dama wax damay jaam bi nag ci nag jéggi na kenn nag jaam bi buur bi ni ko kasamtu fay si baal naa baal naa la mu ne ko def mu ne ko lu nekk mu ne ko wala aafiina ani naasi yàlla nee na ak jaam yi baale ñu ko kon goreel naa demal sa yoon léegi nag wan na meram moo tax dóoru ko waaye baal bi di ko dim ko bàyyi maanaam bàyyi li mu bàyyi mu dem mooy waaye ne wan na meram waaye léegi baale la mu ne ko léegi goreel naa la mu daal di génn dem kooku ñaari aaya moom moo tee boppam dakk kon lu mel noonu nit ñi dañ ko doon dund ci baale jéggale gis ngeen ko sax am bakarim sadiq radiallahu anhu ba aayam wàcce suñu borom mu ni yéen ñi am ay moyen bu ngeen meretee bu leen jiñ naan du ma dugg du ma nangam xanaa bëgg leen yàlla baal leen abubakar mu ne aan kay man de bëgg naa suñu borom baal ma subhanahu wa taala kon ñu mel nii mbokk yi mooy jubluwaayu maqsad bi dëgg dëgg dëgg ci jaamu dum saxaaba yi moo xam abu hurayra moo xam keneen ci ñi nga xam ne ñooy saxaaba yoon bi kon dañuy taxaw noonu فبإذن الله إن شاء الله من يعلم لكم بالتوفيق في الدنيا والآخرة وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه